sallallahu ala muhammad sallallahu ala nuru muhammad mbokk yi Kun kon TV yi ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen baal xaq di leen ko baal ñu ñëwaat si ay leeral yu ndaw si wàllu jubóole yi nga xam ne ne ak si wàllu noot ak wàllu noob ndax dafa am noob noot ak jubóole ñaar ñoo xam ne dañ doon sëy seen diggante bi am gàllankoor nga defaraat leen ba sëy bi normalaat am ñoo xam ne danoo wonante ginnaaw nga boolewaat leen ñu ànd am ñoo xamee ne bëggante wun nga fexe ba kenn ki bëgg kenn ki yooyu yëpp dafay am nga na kenn ki ba mu bëgg kenn ki loolu la naan noob waaw noob yooyu nag dafa am noob yoo xam ne ne mun ko xasee ba liggéey ba jox ko xaj mu lekk daf lay topp comme xar ak doom am yoo xam ne dañ koy jox xar fekkee ne jigéen gi nga xam ne moom mooy sëy moom bañ boroom këram takkaat keneen mooy day jël sa saafara ba mu raxasu ko kanam seeg moom dootu takkaat keneen te lu mu yor jox ko da koy noot ci boppam yooyu moom loolu la naan noog waaw ak noot tas tasxiir nag mooy ki nga xam ne ne danga bëgg di liggéey ak moom lu mu am di la jox walla mu topp sa ginnaaw loo ko sant mu def ko loo ko wax mu def ko kooku moom mooy tasxiir nga xam ne ne léegi mm, bu dee da ngay liggéey ak tubaab wala ab naar nga bëgg mu lay jox yow noon noonu la liggéey boobu noonu la waaye nag dama bëgg wax du chaque jour nga koy liggéey dafa am heure yoo xam ne ne moom ngay jàpp doomu aadama bi am heure yoo xam ne ne moom ngay nopp doomu aadama bi ba mu jàpp heure yooyu surtout bisu vendredi bisu vendredi baax na ndax yu bari gën naa ko leeral si ñu ndax fii moom ñu bari xam na ko si daara ji